Bonjour jox l'inspecteur de la jeunesse moom tamit mu mu sànni merci beaucoup bon mangi nuyu ñi fi bon di nuyu sama collègue aussi inspecteur Kadam donc euh, di nuyu aussi euh, président bi nga xamné mo fi nekkal région bi yëpp ci walu basket di nuyu aussi les collègues yi nga xamante ci cadre sport yëpp moo les fi di aussi euh, teewaay bi donc ku plus important mi nekk c'est la jeunesse donc qui dit sport dit jeunesse donc euh, fii ñun mënuñu fi jóge parce que en tant que chef de service départemental de la jeunesse nous ma fee bañ a donc ku plus important, c'est que ay ndaw ñoo aussi je ngi leen féliciter aussi qui dit sport compétition moy tax ba euh, moy dundal sport compétition boko amul ak euh, discipline bo meunti nek du jëm kanam day soxé donc sportif quel que soit sa discipline bi nga nek da nga wara da nga wara compétir à chaque fois légui nak lool nak faaw aussi ñi nga xam ñoy autorité yi nek ci département bi yi nek ci région yi ci yenen département yi aussi ñuy jappalé seeni ndaw en plus qui di sport sport dafa war a raffermir les liens d'amitié de solidarité de partage sport warul warul nek loo xamante ne daf leen war a non non daf leen war a jegele yéen ñëpp ku d'égo. parce que sànq si benn match bi gis fi, euh, à un certain moment euh, xol yi alors que loolu warul am si sport fair play mo wara am surtout si cadre basket on doit raffermir les liens d'amitié de fraternité de solidarité ba ngeen mën a au moins Euh, euh, benen région bu ngeen mën a ngeen mën ko battre mais lool yëpp nak il faut ngeen ngeen ngeen nek ci ben ben mbuus ci département yi aussi pareil donc man dal duma guddal di len wax rek euh, ouverture ci jàmm waaw ngeen jóge fi aussi ñibbi ci jàmm di rafetlu aussi ouverture bi nga xam fi lañ ko amal ci kungel waaw di wa kungel aussi di rafetlu lañ ko. ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nek turam ak santam. di jégalu bu baax a baax nag ci yéex a ñëw bi du soofal leen mais dafa am ay xat-xat yi ñu jàppoon mais ku xam basket Koungheul xam conseil communal xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay parce que lépp lu ngeen di def Lamine Diouf duma bàyyi ma fen dana ma ko wax te di leen ñëw luñ ci mën ñu def ko ci encore tamit ñu ngi leen di seedeel ne xaw ma feneen de mais Koungheul basket bi nu mu fi war a doxee mu ngi ko fi doxee lu ñuy ñaawlu ak lu ñuy wax ak lu ñu bëgg a jàpp moo ñu xool nan la ci mairie bi di jàppee yokk subvention yi nan la ci conseil départemental di jàppee pour que ndaw ñi ñu leen di dégg feneen di leen gis feneen ñun suñ suyee loolu la te jàpp nañ ñu ci te danañ ko gën a yokk parce que tey lu wane lii dana tax ñu xam ne ñoom nekkuñ ci caaxaan parents yi dinañ ko xam seen yeneen camarades dinañ xam ne carrément ñii ci liggéey bu sérieux la nekk. parce que mën na leen fi di romb chaque jour rek ñu ne du ngeen dem fenn parce que habitude boobu ñun Saalum Saalum miin nañ ko toujours rek looy déstabiliser ci loolu la ñuy dox du ngeen dem fenn da ngeen di sonal seen bopp mais fi ngeen ko teg foofu la jàppaleen ko fii képp koo gis tey mu nekk SR ci fii la jar yéen heureusement am ngeen ay encadreur heureusement am ngeen ñoo xam ne ñu ngi bàyyi ci yéen xel bay organiser lu mel ni tey région bi yëpp ndaje fi doomu région bi rek moo fi nekk kenn raxuñu kon nag neen jàpp. donc dinañu président ligue bu football ligue bu. basket bu kafrin di wax peut-être que sport la bien vrai que football bi lañuy yëngatu mais football ak basket yëpp ben la. li koy firndel tamit témoigné ne Lamine Diouf mi nek fi nekkal fi basket bi c'est un leader né parce que ñun xam nañ ci dara parce que en étant aussi président district. je fi un président football du club bi fi nek bambou bu jouer division régionale demoon na ba national mais quand on a eu des problèmes au niveau finance bien vrai que je suis ngi si basket bi dafa bénévolement nous day jël commission de finances pour suqali le dimbali club et depuis trois ans nous fi nekkee macha allah def na fi depuis 10 ans 12 ans mënuñ ko si pour dire que c'est un leader nain donc nous aussi nous ngi koy au niveau régional ligue bi. soo leen ko dugalee seen bureau bi jox ko fa responsabilité doon ko rëccu parce que ñun football bi su ko defee à plus forte raison basket bu mu nekk su fa nekkee su fa amee responsabilité je pense que dina mën a gën a jëmmal euh, basket bu région bu Kaffrine donc pour les jeunes comme ni ko kii waxee sànq inspecteur jeunesse donc sport bi daf la war a raffermir les liens normalement bu ngeen fi jógee war na am benn groupe whatsapp bi ngeen créé entre vous même éducateurs yi bu ñu fi bokkee pour ngeen di communiquer entre vous di am ay relation di mën a dimbalante ku di demalante di ñëwalante donc fii lay commencé donc ñi amoon heure boobu yëpp peut que man je peux comprendre na fougue de jeunesse la xale moom en général dafay naturel bu koy def ce n'est pas méchant mais comme limu wax ay autorité bu ñu toogee ñëpp toog am na loo xam sport su ko wanee day kay gakkal té waru ko gakkal donc éducateurs yi li ñu leen di defal ci terrain bi toujours bo ñëwee en compétition récitation la wara nek je pense que bo leen nekkee di compétir di fo doo leen mës def li donc même bu féké da ngeen ñëw mu nek xëccu donc ku nek dina wan lu mu bëgg def mais dafay am limite toujours vous êtes entre frères et sœurs donc je remercier beaucoup encore l'inspecteur sport qui nga fait un ne comme le conseil communal de la jeunesse nous avons fait le sport comme le mu fii aussi dina ko wax te lu wax aussi ñun ñep dina nek suñu cheval de bataille pour que subvention du sport bi au niveau de Kungel ins gars yi gën ko jox gëdd parce que tamit amna un secteur yo xamné né sport bi ambassadeur lañ fuñu génné dañ koy xam bo un bambou euh, euh, basket club bu démé fi ba Ziguinchor Kungel la fay représenter donc il va falloir que ñu retrousser les manches pour ñu ayons une subvention parce que ce qui est sûr et certain journée bi même bu ligue bi joxé participation am lépp donc au niveau communal waroon na am subvention bu génne ba mën leen préparer comme suma mbokk joolaa la xaw ma reer be ak même transport lépp war nañ ko mën a gëdd donc déwén incha allah suñ ko defaatee Koungheul Lamine balaa moo yegsee dañ koy teel a préparer parce que tamit

contexte bi la avec tabaski beex góorgóorlu ni mu méttee ñenn ñi xam naa ñi ngi am si lijjanti ñi nekk mais ñi population bi waroon nañu feesal ñetti bâche donc loolu aussi di leen wax ne prochainement dinañ ko préparer de telle sorte que muy basket muy football muy ñëpp tous les sportifs Koungheul waa dinañ ñëw jàpp si di remercier ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm wasalaam merci beaucoup. voilà asalaamaaleykum wa rahmatullah merci Julien donc voilà wax ji mën naa sax bañ a bëri. peut-être ay kàddu ay de remerciement lay l'aide. donc à cadeau de remerciement à l'endroit de tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réussite de cette fête là parce que c'était pas évident au début parce que boo xoolee li tax mu sax dañ ko prévoir une ci vacances mais comme suñu président suñu Khalifa, donc moi suñu président ñëpp xam nañ ne a parce que amul xaalis donc moi suñu bailleur de fonds en même temps vraiment le lu ñuy def ci basket bi moko ci def donc dafa faut jël congé après après julli bi donc vacances c'est da koy fait à Dakar motax mo mu nañ ko def avant julli bi comme ça dina ko permettre bo mu démé Dakar donc mu mun jël son congé à à tête reposée motax ñu accélérer ko ni sax donc lancement la won rek peut-être championnat bi dina démarrer dès l'année prochaine. donc di remercier l'inspecteur de la jeunesse monsieur Sow donc moi aussi c'est un ami c'est un collaborateur tout le temps dañuy waxtaan donc il est tout prêt day est tout le temps di sétane suñu suñu entraînement donc ñuy waxtaan mu ñuy conseiller lu di remercier l'inspecteur de la des sports monsieur Moussa Kadam vraiment aussi mu nit amul Ben jafé jafé heure boko que jot ko donc mu disponible aussi peut-être wax rek mu mu ngi mais mu tout temps. bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu jooyee gis gis inspecteur bu ñu fompal suñu rongoñ te moom aussi gëm naa ne am na capacité te am na leadership boobu donc bëgg nañ tout le temps bu ñu gesoo di ko gis suñu ginnaaw mu ñuy jàppale inst donc encore une fois ñu ngi la koy ñaan donc nga gën ñoo taxaw gaa optionnaire football la moom football rek la bëgg tout tout le dama koy wax moom daanaka ancien ancien joueur la sax football football la bëgg mais nag bon bàyyil xel basket bi bu baax a baax vraiment ñu ngi lay dénk suñu bopp vraiment di di dénk suñu bopp Koungheul yëpp parce que ñun amuñu amuñu amuñu xaar ma yàlla ak kenn amuñu xaaj ak seen ak benn sport donc président wax na ko léegi vraiment li may def ci football bi li may def ci basket bi loolu laay def ci football bi. bañ naa ko ba j'ai été vice président de d'un ASC sama ASC koñ donc dem naa ba peut-être mënuma boole allié ñaar yëpp des fois dañ may reproché que ne basket bi laa gën a xool ko football bi moo tax ma bàyyi présidence ASC bi pour concentrer wu ci basket bi. mais équipe bi nga xam ne équipe football la mu nekk équipe équipe euh, la mën naa ko wax sax gaa am na yeneen département yi am na yeneen communes yi am na équipe. mais Koungheul mooy représenté département bi foo dem ci si ci Sénégal donc dama jël décision bénévolement comme ni nga ko waxee dugal sama loxo accompagner leen moom aussi mu nekk nit ku ñàkk keñaan Moi, son ami de toujours monsieur Amadi Fofana vraiment ñoom ñaar foo gis bingo bingo laa leen de foo gis est rek gis nga donc moi, moi le président du comment dirais-je du sous de de de des arbres de Koungheul donc Amadi, moi aussi très disponible ñu sommes koy gërëm di ko donc di gërëm le président du conseil communal de la jeunesse moom c'est un c'est un jumeau là. c'est un jumeau vraiment ma moom du ñu ci dara donc ñoo bokk benn bërëb bu ñuy dañuy xëy suba ba ngoon di gisee dañuy xëy suba ba ngoon di waxtaan donc mu nekk nit ku am xam-xam ci ci lu jëm ci wàllu jeunesse wallahi azim donc mën naa ko seede dafa may conseil lu bëri bëree bëree bëree bëri donc lépp lu ma dugg aussi ci basket bi wala mu doon doon loo xam ne ci wàllu jeunesse la donc du ma ci ak moom dem naa ba daanaka sama yaay su amee lu ma ba wax sax ñeema ma wax moom lay woo pour mu wax pour pour wax ma ko vraiment kooku sama seen jumeau donc di ko gërëm di ko sant bu baax baax meret naa ko nag ndax dafa xaw a tardé parce que moo fa waroon jiitu moo waroon dalal gan yi vraiment bu loolu weesoo président euh, Pape Koungheul amuñ sa fay vraiment parce que lii bu amee tey yàlla ak yow la bon duñu wax mais xam nañ xam nañ li nga daj ba lii am parce que équipe bi amuñu moyen municipalité yi jàppale wuñ ñu basket bi donc suñu football bi lañ gën a jox nopp mais mënoon nga ne. agent agent agent trésor nga mën nga wagn sen loxo pour pour pour ñu joxe mais doko def ga di di nga woté soñu len mais ku ci deful aussi tax nga forcer ko yaa génne sa poste bopp def donc mënon na la ci baña fek vraiment ñu ngi lay gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax équipe bu def déplacement ñew tay sa poste dem na def na dem na ci ku ngeel bu organisé ba mel nii sa poste dem na ci donc ñu ngi lay gërëm bu baaxa baaxa baax di gërëm Julien aussi mom moy Baye Fallou basket bi mom vraiment donc waxuma sax waxuma sax Kaffrine mais au niveau national képp ku képp ku wax basket xam nga Julien donc yàgg na ci basket vraiment di ko am ku am xam-xam ci basket. donc vraiment ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a ci disponibilité bi ak ci engagement bi di gërëm coach yi nii donc lépp ñoom la vraiment xale yi bu ñu amee lii tey parce que je me rappelle ñun bu commencé en 2018 en 2018 lañ créé KB KB KBA donc Kaffrine moo fi amoon équipe. jeex na Kaffrine moo fi amoon ñaari équipe je mais diggante bi coach vraiment def nañ de sorte que ñii bi am na équipe léegi ñu ngi compétir ñu ngi entraîner Boulel Nganda Mbikilaan fa fàtte woon naa ko ñooñu moom en fait mën naa leen fàtte sax parce que Mbikilaan Koungheul ñoom xam nañ jarul may wax ah. waaw Mbikilaan ah Mbikilaan Koungheul benn la ama <laughs> waaw ñun moom mooy loolu. Mbëkke daal naa leen sax bañ a tudd comme ni ma bañ a tudd ni a mais ñii ñi nga xam ne vraiment ñu ngi siy jàpp coach Camara ak coach Bodian vraiment ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant vraiment liggéey bi am na solo donc di leen jaajëfal yéen aussi xale yi bu baax a baax baax a baax di leen wax ne affaire yi nii la rek affaire yi da ngeen parce boo ko bëggee 16 heures na la fekk terrain nga takk daal yi ba mu dëgër chaque jour nag. amul samedi amul dimanche soo buggee progresser wala nga bëgg lekk xaalis ci basket lekk xaalis ci basket donc foo nga takk dal yi de 16 heures à 19 heures respecter entraînement yi respecter kuma suñu coach yi donc loolu mooy indi progression ci basket. basket bokk bokkul ak football wala yeneen sport yi football da nga koy judduwaale football da nga judd mën a football. mais boo juddee mun boo juddoo mën a fubal mënoo wax wax wax wax bu mën fubal donc da nga koy c'est c'est inné en en en nous mais basket moom da nga koy jàng donc kenn kenn kenn juddul mun basket da ngay da ngay judd ñu jàngal ni ñuy bondee ni ñuy passé ak ni ñuy tiré donc voilà loolu bu ngeen ko gëmee rek daf ko def ko def ko daf ko daf ko seen seen seen xel seen bopp donc réussite dina am avancement dina am donc du ma fàtte aussi municipalité bi. vraiment jàppale nañu ci organisation bu baax a baax a baax vraiment le maire jàpp jàpp na dugal na loxoom vraiment donc moo ñu gérer daanaka restauration bi sax voilà ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant. donc di gërëm encore une fois délégation yi donc am na ñi nga xam ne peut am nañ ci ay gaañu gaañu donc leen ñaanal peut-être ñu ñu ñu ñu tane ak jàmm donc di gërëm souvent gars yi dañuy wax basket bi du bugguma sax ñu ñu ñu may tudd ndax basket bi man dama ci dama cee dama cee ko quoi vraiment wéetu ci ndax fu ma gestu maa ngi gis sama doom ndey sama acolyte Abdou Gueye vraiment bëgg naa ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax. waaw borom loxo borom loxo bu neex bi waaw. Doudou <laughs> Gueye Doudou Gueye Doudou vraiment Pape Abdou Gueye nit nit ku goree ngi nii. nit ku ñàkk problème a ngi nii nit ku bëgg basket ngi nii wallaay azim man la nga tudd rek mais def mu ci dara wallaay lépp moom la xale yi tey ku ci mën basket basket yàlla ak moom la donc c'est le coach wallaay azim donc maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax a baax te da ciy sonn tout temps day génnee xaalisam di ci def bu gis nga bu ñu organiser lii yëpp ay bagage am la matos bi matosam la lii yëpp bu ñu waxee mu ne lu ngeen ma jox rek. peut-être lu mu doon organisation mais bu fekkoon organiser la gratuitement donc loolu aussi mënoon na ko mais def di nit ku di aussi ah, waaw docteur vraiment moom aussi nit ku vraiment tout le temps mi ak ñun terrain donc ancien c'est un infirmier chef de poste <laughs> voilà donc mu nekk nit ku disponible aussi vraiment jàmbaar la ñu ngi koy gërëm di ko sant donc du génne loxoom ci équipe bi lépp lu mu mën suba ak ngoon ñu ngi ñu ngi koy def xale yi ku ci gaañu moo lay faj ku ci feebar mooy la ñëwal mu sampal la perfusion donc du ñu faj daa du ñu fay dara dara dara dara vraiment moom aussi mi ngi ñuy jàppale bu baax a baax a baax donc kàddu gi gudd na trop mais donc je tenais à dire ces mots là. vraiment kontaan naa trop xol bi moo fees sax bëggoon naa wax lu weesu li mais donc lii moo génn ci lii moo lii moo génn ci xol bi donc ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen ñaanal délégation yi ni ngeen ñëwee ci jàmm donc yàlla na ngeen ko delloo ci jàmm xale yi képp ku ciy def examen muy BFEM muy bag sunu borom yàlla na leen may réussite totale à cent pour cent donc vraiment ñu ngi leen koy ñaanal ak ñiy def entrée dem aussi vraiment content nañ bu baax ñu gi jërë jëf merci. ñu ngi fi inspecteur euh, départemental des sports monsieur Karam. di également inspecteur départemental euh, de la jeunesse monsieur Sow di le président du conseil communal de la jeunesse Et également le président euh, de la du district de football Je remercier l'autorité mais également autorité administrative et autorité locale yi nous ci suba nañu de l'état bi adjoint ñëw na fi mais di ci remercier également monsieur le maire Badouli. d'ailleurs nous le parlé de la journée bi euh, def na ci loxoom ni ko euh, euh, vice président ligue régionale bu Kaffrine monsieur Lamine mais également tey ci suba Euh, présidente conseil départemental euh, euh, de Koungheul madame Socé Diop déjà woo na ma ma yëgal ko ni maa ngi Kaffrine maa ngi Koungheul du mas muy demandé wu lan moo tax yëgaluñ ko manifestation bi xam naa nag loolu fotu Lamine la <laughs> mais ma man man su ma su ma bàyyee Lamine mu def li mu war a def bu ko deful fotam la mais Socé nee na bon dana beneen yoon dana ci gën a jàpp parce que suñu xarit la aussi. d'ailleurs ñu ngi remercier ñëpp ah bu ñu paree ci autorité yi ñu remercier les encadreurs encadreurs yi gis nañu liggéey bi ngeen def euh, ba tey bu fekkoon dañuy décerner euh, benn équipe boo xam ne nii moo gagné ci journée bi ak tournoi bi pour man dañ koy jox équipe bu Nganda. équipe bu Ngàndal la ñuy jox euh, victoire bi parce que tout simplement équipe yi fi nek ñëpp tay biñu jouer, jouer nañu dé mais équipe bu Ngàndal mo ci gëna discipliné bien que mënuñu basket mais ñoo ci gëna discipliné da nga xam ñi ñii am nañu kilifa. lol nak euh, monsieur Bodian félicitations ma euh, sànq bi ñuy joué ak Kaffrine ma nga naan kima ma dendal ma ko xolal wa Ngàndal dañuy jouer sen basket des na ay grand commerçant commençants lañu mais liñuy def ci yoon lañ koy def dañuy def ndank ànd di paasante ba ag fële. ñeneen ñi nak dañuy jaay one man show jël bal bi dribbler camp ba camp loolu du basket basket c'est un jeu collectif bu doon loolu la mën nañ jël 1 contre 5 bo gisee ñu teg leen cinq par 5 c'est parce que dañu bëgg ngeen di paasante. ben instant Koungheul def na ko ci premier match bi deuxième match bi nak dañ doon waré sen bop d'accord. Lol du basket ren Kungel normalement dafa won affilié jouer 2 2 des 2 président Lamine mu ngi ni yéen da ngeen waroon jouer affilié jouer 2 2 li fédération basket amone élection mo waral jouer wu donc gën len sérieux ci li ngeen di def gis ay star yu mak bir kungel ci bir équipe bi mais tojagu fenn Lamine euh, euh, même touti ma xool tojagu leen fenn xam nga man toj naa dëkk bi man Sénégal xam nañ ma bitim réew xam nañ ma yéen kenn xamu leen d'accord kon def leen ndànk ngeen basket gën leen sérieux ci basket bi ngeen di def ah Julien xam nga booy toj toj naa fi toj ma wax leen wax leen ko. non ba léegi. waaw ba léegi maa leen mën donc gën leen wàcc basket tey la ak dal.

tey jii kum Kaffrine ñoom foogoon nañu booy Kaffrine ñoo mën ñëpp mais ñu dikkee bi leen Bamba Kilaan dóoree ñoom ñëpp wàcce nañu ana booy Kaffrine yi voilà donc bu ñu bu ñu bëggee tournoi yu mel nii nag dañuy bëgg bu ngeen delloo ngeen gën a góorgóorlu donc déjà tey bii lancement la woon mais bëgg nañu balaa at bi jeex ñu defaat beneen beneen journée bu mel nii certainement à Kaffrine booba équipe yëpp dajewaat foofu.

te vous da dimbali ou toogee di composition capacité de réflexion de donc bàyyi leen xel li le fait que ngeen di terrain rapidement am di def changements brusque rapidement yo, ci bir terrain bi bu à l'école également da une capacité de réflexion ñu xamuñu donc leen xel ci sport bi di

ngay y a def composition wala examen day da lay dimbali man ci expérience fi ngeen jaar ni jaar la veille bi may def bac këyit dama dem sport yi parce que dama jàpp ni sport booy jàng boo jàngul ba mu je le lendemain waratul nga fay nekk naan da ngay jàng ba xaaja guddi pour xëy dem defi examen dama arrêté euh, benn jour boobu dem sport féexal sama xel.

sur le terrain la preuve trophée nous nous pour pour pour après dellu liggéeyaat quelques temps après nous d'accord donc nous tàccu seen bob et puis nous remercions l'autorité, parce que nous sommes ñu ki ñaan le fait que nous ce matin kadem na mu nous ba ngoon gi mu day Nous vraiment euh, département vraiment te loolu nag dañ ko ciy remercier inspecteur jërëjëf vraiment li ay kàddu sant yàlla la ñëpp ñëw ci jàmm ñu pare ci jàmm ñu ñibbi si jàmm ba beneen yoon incha allah wa ila liqa jërë ngeen jëf